ay aywa professeur euh, Lamane Mbaye laata sunu invité bi di waajal ba Badara Gadiaga bokk euh, membre du secrétariat national du parti réew mi xam naa euh, bu Modou Fall jógee incha allah dina toog Alassane Mbaye itam ñu ngi koy xaaral bu ko defee mu gën a jàkkaarloog sunu gan gi bu professeur Lamane Mbaye noppee professeur ñuy waxtaanee professeur Iba Der Thiam. Euh, bu nu waxee euh, jaar euh, ay jaar jaar jaaram xajul ci émission candidat à la présidentielle en 2000 nekkoon pencum ndawi réew ma vice président assemblée su ma juumlee ministre de l'éducation professeur émérite historien boo xam ne ràññee nañ ko tey moom mu dëdd doomu Kaffrine bi ñu denc ko fii ci sër gi nekk ci Ndakaaru jërëjëf Faty yaakaar naa ni tënk nga jaar-jaar yi professeur Iba Der Thiam jàmbaar ju mag jooju nga xam ni ñoo ngi ñaan yàlla suuf woyof ci kawam nekk koo xam ni dafay d'abord modèle xam nga professeur Iba Der Thiam boo ne professeur tur wi dafa rëy ndax da ngay jóge assistant dem maître assistant dem maître de conférence di jaar-jaar ba yegg professeur loolu defe naa ni dafa sori mais Iba Der fa mu jóge ma sori Iba Der avant muy nekk instituteur dafa nekkoon moniteur kon kooku yaakaar naa ni modèle lu jom la Euh, pour ndaw ñi ñu xam ni nit mën naa nekk ci benn pàcc di fa jóge ba yegg ca njombaxtal la nga xam ni ku nekk université moom ngay bëgg a dégg muy professeur des universités mhm. professeur Iba Der Thiam nekkoon Tataguine mook général Wali Faye ñu nekk fa moniteur mu yegg si ba fii tey ji kooku yaakaar naa ni am na way beneen bi ci des mooy professeur Iba Der Thiam Sénégal rek jariñoowu ko africain bu mag la ndax xam nga ni bi ñu waree taxawal li ñuy wax histoire général de l'Afrique nga xam ni kàngam yu bari lañ ci jël moom dafa bokkoon ci membre comité scientifique histoire générale de l'Afrique boobu nga xam ni euh, ñu mel ni ay professeur Kizerbo ñu mel ni ay professeur Ibrahima Baba Kaké professeur yu mag yooyu yëpp dañu nekkoon ci biir foofu ca professeur Iba Der am représenté woon fa Sénégal représenté fa Afrique waaye wax nga ko taxawal na euh, réew mi ndax nekk na assemblée nationale te yaakaar naa ni bokk na ci ñi nga xam ni li ñuy wax les questions orales li nga xam ni professeur Iba Der Thiam taxawe woon na ko marqué na bu baax a baax histoire réew mi CDP garab gi wax nga ko sànq politique na waaye li nga xam ne moom lañ ko mujjee jox muy histoire général du Sénégal président de la République def ko coordonnateur loolu yaakaar naa ni màndarga la waaye danañ retenir tam ni professeur Iba Der Thiam euh, euh, jël nañu concours général def ko parrain loolu nag yaakaar naa woy la woo xam ni dootul fay ba mukk en tout cas euh, kii nga xam ni moom lañ ñàkk ñàkk nañ sénégalais bu mag ñàkk nañ un grand patriote bëgg réew mi nekkoon na école normale supérieure tey ñu tuddee ko FASTEF. Mhm. professeur Iba Der fi mu jaar bari na. waaye fépp fu mu jaar rek bàyyi na fa woy mhm. nekkoon na ministre de l' nationale. li ñuy wax école nouvelle moom moo ko indi. mais li ma gën a man tey bu ñu ma doon laaj ci professeur Iba Der Thiam mooy 1985 Fatick. Mhm. oui président Abdou Diouf moo fi nekkoon. Euh, professeur Iba taxawaloon lu ñu wax journée du parrain. tey jii moo tax. dëkk yu bari boo fa demee da nga daan fekk école un école deux waaye dañ koo dindi jox ko ay ay ay ay ay kilifa yoo xam ne nekkoon nañ ca koñ ba nekkoon nañ ca dëkk ba ñoo xam ne xale yi dañu war a jël ci ñoom ay exemple dañu war a jël ci ñoom ay modèle ca loolu bokk na ci li nga xam ni mi ngi bëgg a tumuranke loolu ci réew mi <coughs> même euh, je pense que tamit suñuy wax ñi ñàkk tamit xam naa ne euh, université Cheikh Anta Diop euh, ñoom tamit dinañu ci bokk ndaxte euh, professeur euh, historien mar marqué na génération historien yu bëri. moo xam ne dëgg euh, Diaw bii ministre xag Kalidou Diallo wax na ko nee na ñun ñëpp moo ñu formé ñi mu formé ci université bu ñu loon den lim tey jii du jeex waaye ni nga ko waxee sànq rek professeur Iba Der Thiam boo tuddee université kenn ku nekk dafay bëgg jël professeur Iba Der moom moomale ko boppam. professeur Iba Der nekk na ay ndomb takkal nañ ko ndomb tànk yu bari mu boole ko ñëw di jàngale si université loolu yaakaar naa ni exemple la boo xam ni war nañ ko méditer ku mel ni bàcci lii def na ko donc ñu nommé la ba pare nga wëlbati wëlbatikuwaat ñëw joxaat ñeenti waxtu wala ñaari waxtu université loolu yaakaar naa ni lu rëy a rëy la di jaale nag soxnaam Euh, docteur Marème Touré Thiam. Mm. waaw nga xam ne moom itam UNESCO ma nga fay def liggéey bu mag. solo man xam naa ko bu baax parce que euh, liggéey nañu fii ci Sénégal liggéey nañu aussi Belgique muy euh, jigéen joo xam ni jàmbaar la ca njaareem mu dëkk. waaye jàmbaar la aussi ci taxawu jëkkëram. Mm-hmm. ak taxawu lépp loo xam ne moo jëm ci Afrique ak rawatina àddina bi. bu taxawee nag ci matière bi nga xamante ci la xam-xamam màcc muy wàllu histoire solom dèjà ci réew professeur. Oh, mais xam nga Diaw dañ koy wax di ko waxaat. xam nga tey jii boo diggee ñu naa programme Sénégal émergent lépp loo xam ne ñi ngi koy mën a def ci nit xamul boppam du mën a sori professeur Iba Der bokkoon na ci ñi nga xam ni professeur Cheikh Anta Diop ñu mel noonu bokk na ci ñi nga xam ni jox nañu Afrique seen dignité gis nga histoire générale du Sénégal bi loolu moo ko tax a jóg du autoglorification du par exemple delluwaat ci gannaaw waaye bëgg ndaw ñi xam ñooy ñan parce que nit bu xamul boppam du xam fa mu jëm ñi nga xam ne tey moom ñoom la ñuy roy ca nga xam ne lii ñu am Euh, waruñu ko jëgaani fenn Socrate moom la ñuy wax ni c'est le plus grand philosophe de l'Occident mais xam nga lu mu wax connais-toi toi-même xamal sa bopp Kocc Barma loolu la wax professeur bokkoon na ci ñi nga xam ni dafa xam d'abord par le sang lan mooy histoire waaye jàng ko ba nekk agrégé ba nekk docteur d'état kooku yaakaar naa ni eh, xam na lu baax histoire xam na lu baax luy taarix neesa def moon ndonale nag ñu gën côté ak lim fi lim fi liggéey ci waaw euh, loolu de moom dafay des ci ñi nga xam ni ñoo fi des parce que nag Euh, moom bind na bàyyi fi wax na bàyyi fi euh, ay téeréem a ngi fi lii di histoire générale tey mooy son plus grand rêve ñu eggale ko parce que juróomi tom yi génn na yaakaar naa ni daal kilifa gi ñàkk nga xam ni euh, ñi nekk ci histoire générale du Sénégal muy professeur Rokhaya Daba Fall muy professeur Mamadou Fall muy professeur Bouba Diop ak ñi nga xam ni ñëpp ñoom la séqal histoire générale du Sénégal yaakaar naa ni am nañu woy waaye nag professeur Mamoussé Diagne wax nañ ko démb mhm. nekkoon moom itam UNESCO waaye nekk kilifa gu mag goo xam ne ci université di philosophe di koo xam ni kenn la ci professeur Iba Der kooku ni ñu ko koy jàlle mhm. ñu ngi koy jàlle mhm. euh, euh, boo xam ne gis nañ ko euh, ci front yu bëri professeur Lamane Mbaye ni nga ko waxee mu nekk ci mbootaay gu mag waaye itam avant avant tout sociologue la nekk suñu fierté ñun waa Sénégal. Mhm. vraiment ku baax ku mhm. ku baax ku am jom moom itam. Mhm. Euh, lépp loo xam ni dafay jëmalee kanam société parce que moom sociologue la lépp lu jëmalee réew mi ca kanam gis nga li ñuy wax tey le communicateurs traditionnels bi ñu koy créé en 82. a Saly. moom moo animé atelier boobu nga xam ni madame Aminata Mbengue Ndiaye moo nekkoon ministre de la femme mm-hmm. kooku yaakaar naa ni def na ci réew mi taarix yoo xam ni mm-hmm. ak ay programme yu bëree bëree bëri euh, docteur Marema Touré bu UNESCO bokk na ci mm-hmm. ca moom mooy soxna professeur Iba Der Thiam ci wàllu politique au delà de l'historien gis nañu aussi assemblée nationale parce que ku daa dem assemblée nationale di déglu professeur parce que assemblée am na loo xamante ni moom leen di bàkkee mooy wax ju ñaawale nanga mais moom mosoo ko dégg ci yooyu beneen mooy ay initiative loolu ay parlementaire yoo xamante ni jël nañ ko bi ci mujj bokkoon na ci même affaire euh, loyer bi cheraay bi bi fi nekkee taxawaay bi nga xamante taxawoon na ko dëgg la dëgg la dëgg la Chérif loolu yaakaar naa bokk na ci li nga xam ne sax moom la soxna Faty doon laaj hmm. li ñu mën a jàpp ci moom xam nga nit ay valeur la Euh, yaakaar naa ni doomu aadama du rek ay koppar du rek ay ay infrastructure mais il faut bopp nit nga def ci ay ay ay ay xam-xam gis nga professeur Iba Der Thiam li président Senghor waxoon ni moom bi mu ñëw 45 fii ci Sénégal. Mhm. nee na moom ñëwuloon pour def si politique. Mhm. mais nee na bi mu gisee la misère des populations ci la ni moom. day dugg ci politique mais professeur Iba Der dimbali woon doomu aadama yi démb déglu naa le maire le maire de Kaffrine Abdoulaye Wilane mu ni Iba Der musu ko wax mais sëriñ daara yi ak imaam yi ñoo ko wax ni ko bu masaana jot salaire am day ñëw di séddale sëriñ daara yi ak imam yi ca Kaffrine loolu yaakaar naa ñoom seedeel nañ ko seen bopp bari na xaalis yi bari yoo xam daaw ko jël daraan wax naan nañ ko jox néew bi doole yi mm-hmm. donc ni nga ko waxee sànq sur le loyer sur beaucoup de questions sociales professeur Iba taxawoon na ci ca ku mënoon a dimbalee nitu jàmm la woon aussi mm-hmm. je crois que loolu aussi c'est important nitu jàmm la woon mm-hmm. ca jàmm gisuñu lu ko gën fii ak fanu jëm ñu ñu ko daa interroger am na bis boo xam ne ajuma moom. Mm. xel xalaat bi ñu koy mi ngi ci kurus gi ak yooyu moom. bis ko ko séddee euh, parce que ñun bi ñu nekkee Sokone je pense que Ibou Kante war na xam moom à chaque fois euh, ziyaara sëñ Amadou Deme du ko doon tardé. veut dire que miinoon na côté boobu yëpp te wàllu diine bi tamit. xam nga foofu def na ci lu rëy parce que. téere yooyu nga xam ne moo nekkoon moo ko indi. Mhm. téere yooyu tey boo demee Sokone li sëñ Amad dem bind lépp professeur Iba Der bokk na ci. Mhm. ñii nga xam ne ñoo combattre ba mu ba mu dellusiwaat. Mhm. donc moom côté am na solo professeur Iba bu masaana euh, lekk tey bu suba day woor. pendant toute l'année donc nit la koo xam ne daawul fooy diine. ku amoon diine la. loolu je crois que aussi mën nañ ko retenir ci moom. ak ak ponctuel aussi. boo joxee heure moom nga la 3 heures. 3 mooy valeur yi professeur Ba boo 3 moom interview boobu yow nga. day nax saay defi loolu nag di euh, lu am solo lu mat a bàyyi xel bokk ci lim ñu fi bàyyil te ñu war ko sàmm professeur ba dee Thiam euh, ñuy ñaan suufu yoof woyof ci kawam euh, borom bi subhaanahu wa taala jégal ko bépp bàkkaar moom ak ku mu fekk barzaq ak ku ko fa fekk di jàllewaat encore une fois docteur Marème Touré di soxna borom xam-xam bu mag boobu di sociologue bu mag euh, bu waxuma Sénégal sax àddina wërngal këpp ñoom ñoo xam liggéey bu rafet bi muy liggéey professeur euh, ñu euh, dig la daje ba beneen yaa ngi waajal wëndeelu wala pare nga ci numéro spéciaux yi ñu koy waaj yaakaar naa ni dinañu waxtaan ci biir semaine bi pour xoolaat encore mhm. waaye Faty nga may ma aussi mhm. Faye mhm. Faye mooy assistant professeur Iba Der waaye Faye boo ko gisee fay jarbaat la fay rakk la fay lépp la foo gis professeur Iba Der fay mi ngi taxaw ci gannaawam kooku aussi yaakaar naa moom itam ñàkk na mm-hmm. kooku aussi ñu ngi koy jaale bu baax jërëjëf bu baax ñu jaale ko bu baax a baax fay di ko jaale tout peuple euh, sénégalais professeur Lamane Baye ñu dig la daje lundi kon incha allah ci beneen ja beneen jàngat très bien professeur Lamane Baye la woon euh, léegi-léegi ñu dalal sunu invité